nee leen comme ni ñu koy toppalee Bamba Milano moo woote le 23 ci drapeau ñaari ndaanaan yi ma fegool nee leen kii ma fegool sama càmmeñ xam ngeen ko bu baax waaye kii ma fegool sama ndijoor tamit xam ngeen ko bu baax kii moom moo di dab daan nee naa la xale bi nga xam ne moo tëcc làmb ji yëpp moom lañ koy jox mu feree na ko moom mooy dab daan yéen a ngi fàttaliku mbokk yi tàkku saanam ak mbaytin si ñor yéen a ngi fàttaliku tàkkusaan ak Mor Kankang yéen a ngi fàttaliku ay yeneen i yeneen i yeneen i yoo xam te ni ngi woon ci arène nationale waaye kii sëriñ Ndiaye baayam daa doon nu mbër gi nee leen daanaan la yéen a ngi fàttaliku moom it tàkkusaanam ak Ouskara yéen a ngi fàttaliku tàkkusaanam ak caatu Mbambara yéen a ngi fàttaliku fàttaliku tamit saanam ak Sàkkal mu nekk ay xale yoo xam te ni ay ndaanaan lañ ci làmbu kii espoir la kii ndaanaan la ci làmbu yaakaar naa ne ñaar ñi ma feggool ay ndaanaan lañu xam nañ fu ñu jëm xam nañ lu ñu bëgg làmb rek mooy seen métier waaye nag Bamba Milano daa defati loo xam te ni lu doy waar la ndax drapeau bii la jantarmara lañ ko tuddee drapo bii boroom xaas lañ ko tuddee drapo bii boroom taw féex lañ ko tuddee muy kan Serigne Cissé boroom taw féex la ñu tuddee drapeau bii muy ñaari xale. ma Milano nag ne combat boobu ay innovation lay def nee leen képp koo xam te ni daa bëgg gis culture wala nga bëgg a gis cosaan nee na leen cey la jour si cey la 23 décembre nee leen di ngeen mandi li nga xam ne moom moo di cosaan ak aada. ndax Milano nag nee naa leen <laughs> Milano yi réew mi dina bari artistes yi dinañu ñëw ndax première su neem la ci biir arène nationale te daa war a dugg si ak beneen facette beneen facette bi nag gaa yaa ngi wàcc képp koo xam te ni namm ngeen ko ci wàllu artiste ci wàllu way ci wàllu aada ak cosaan rek nee naa leen le 23 dina wàcc waaye drapeau Serigne Cissé la borom tawféex ci kan laay njëkke ci ñaar ñi ñu ngi nappante nag vite ngeen gis moo def verre yi waaye daf daan ngeen gis mu fas kanam gi <laughs> mooy borom moustache yi ah kan laa war a njëkkee ñu ngi reere kan laa war a njëkkee ci ñoom ñaar ah vite fait nee na ma njëkkee ko vite fait ñoo ngi lay nuyu di la ziar. waaw ñoo ngi lay fay di wax onze billah bismillah inna waani yàlla jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jaaraama maam Seera Fall ginnaaw ba ñu sante yàlla julli bi di sant sumay samay waajur ndig di sant sama waajur ruu suñu Abdoul Ahad leer di ko ñaanal jàmm waaw di nuyu gars yi fi toog yëpp sama doomu nday méta moom laa àndal di nuyu aussi waa restaurant bi ñu nekk muy Alfadilu Vita nekk fii ci Malika. di def ay bagages yu am solo. waa di wax ne doom Malika yëpp. nañ ñëw euh, jàppale ko quoi parce que mi ngi def lu rafet quoi. waa di gërëm aussi promoteur bi Milano production. di wax ne sponsor yi nañ ñëw jàppale ko. parce que bis yu mel nii. da ciy soxla ay sponsor boo gisee blouson yu rafet yu taaru yi. normalement waroon na mën ay sponsor yoo xam ne ñooy defar blouson yi. waaw di nuyu ñëpp. alfadulu xanaa dina ci dugal loxo waa alfadulu vida ñoom ñi ngi def lu am solo wax dëgg yàlla mm-hmm. waaw. Mm-hmm. ñoo ngi lay nuyu di la ziar. ñoo ngi lay fay. bisimilah rahmaani rahim. aouzu billahi min seytaani rajim. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur. Mm-hmm. di sant jam ñaajo bi yëpp 1 ba 22 de bàyyiwuñ kenn. xam kenn am di nuyu ñëpp ku fi teew xam nga di sant waa restaurant bi ñuy lu nekk nii muy euh, Alfadelu euh, Vita. xam nga di leen ñaanal jàmm ne xam nga euh, añ nañ fi añ bu neex wax dëgg fa xam nga naan fi jus yu neex xam nga di leen ñaanal jàmm. xam di sant nag xam sama gars yi ma àndal xam nga ku si ne mel ni Boy Jum. xam nga armée bu ngéwal. ak Duudu. xam di sant ñëpp ñu ma fi fekk xam di sant promoteur bi. di sant nag jam ñaajo 1 ba 22 di leen woo ñoom ñëpp di woo sam papa Mamadou Moulay Gueye si combat bi di ko wax woo bu baax combat bi combat la mu ñëw jàpp ci xam ni ay doomam ñoo soxla di woo suñu président écrit Adama Mohamed Mbaye ma suma xarit xam suma doomu nday suma frère xam di ko woo ci làmb ji di woo jam ñaajo bi yëpp Abdou Aziz Mbeng di ko woo ci làmb ji di woo euh, Baba Traoré di woo euh, Pape Amandaw Seck jam ñaar yëpp 1 ba 22 bàyyiwuma kenn xam di woo ndooy Abdou Ndoye di ko woo ci ci combat bi. di woo Ndoye bu baax a baax a baax di ko woo ci combat bi pour mu ñëw jàpp ci. xam nga di ko woo jam ñaar bi yëpp Babacar Mbengue. xam nga euh, Aziz Mbengue. Euh, Adama Mohamed Mbaye. le maire Mamadou Moulay Guèye. Euh, Pape Amandaw Seck. Serif Laay. docteur Laay ñoom ñëpp xam di leen woo ci làmb ji ñëw jàppale seen doom. seen xarit ma jàpp waaye daan ko jël bu rëy incha allahu rabbi jërë ngeen jëf mbokk yi yaakaar naa ne ku xooloon image bi nga xam ne ci la ñaari combat yi doon taxaw nga xoolaat ñaari mbër yi nga xam ne bis bi jaral na leen ndax ku ci nekk maanaam changement am na yokkute am na kon nga xam ne bis bi jaral na leen waaye nag da di drapo boo xam te ni drapo kilifa ngeen koy bëree mooy borom xaas naa leen mooy borom tawféex di Serigne Cissé borom tawféex nga xam ne yaakaar naa ne bokkut ak maara yi nga xam ne dañuy dóor wala maara yi nga xam ne dañuy naxe ndax bërki démb la ko nguuru Arabie Saoudi jël yóbbu ko foofu mu nekk fa ay weeri weeri weer di liggéeyal nguur gi kon kooku xam ngeen ne bokkut sëriñ bu ñuy tappale cey la 23 vite fait lan ngay waajal dab daan ndax gis nañu ne yokk yokk am na macha allah ñu gis fan fan ngeen toll ci bis bi. waaw bis bi moom ñu ngi si rek comme ni ñu doon waajal suñu yeneen combat yi suñu borom duñ suturaal comme noonu la ñu waajal suñu combat ànd seeg suñuy mbokk ànd seeg sama papa ak samay ñi nga xam ne samay am di jàmm lañ di sonn samay bis di ma soññ si entraînement. waaw comme ni ma daan waaj yeneen combat daal laa koy waajee. Mhm. xam nga bëreeg dab daan ak bis bi fan la toll. ah bëreeg dab daan bis bi loolu tollu ma fenn man bëri naa ay bis. bëri naa ay bis yoo xam ne nii mooy lool su ma ñëwee ñaan ñi kii warul jël kii mooy gën a nekk booy. comme ay bëreeg dab daan ak bëreeg Balla Gaye ak bëreeg Yékini laa yemale. Ah? sa waay boo bëggee dégg-dégg. lamb maa lijjanti woo ko. barki moom sa waay. Mhm. gisuma lu lu si lukki sama bët quoi. ba dab daat mi fërëjënteew la. déggoo li ma la wax man làmb gisuma lu si lukki sama bët parce que damaa juddoo si keppaaru bëre yaroo faas gis nañuy takkee ngemb nañuy bëree nañuy joxe ay kele comme man làmb gisuma lu ma ci jaaxal. doole rek laay jooy te maa koy ut incha allah su ma ko amee gaa yëpp am problème. waaw kon yow sa bët kon ci. barke Serigne Fall sama bët tegu ma fii yëpp waaw man maa ngi ca kaw. est-ce que xam nga ki ngay bëreel. xam naa ko daanaan la. expérience bi nekk ci moom. maa fii la ëppee. daf ma mag rek mais maa ko ëpp expérience téeméer yoon. billaay wallaay. <laughs> ah <laughs> dab daan booy bi ñu mel ne la de. <laughs> waaw kon loolu rek nañ bàyyi naan booy bi man maguma ko maguma ko kii ku gis xam ne maguma ko. nañ bàyyi di jàpp seen i bopp ay booy. kii làq na 40 ans wala 45 ans. waaw làmb la rek kon làmb yëpp kon li mu wax rek. tegul bëtam si dab daan dab daan la teg bëtam loolu la 23 lay leer incha allahu rabbi mhm. man bis duma dépassé. bëri nañoo ku ne kon bëri ak vite fait kon nu mu ko waxee. keppaaru mbër la yaroo ñun amuñu maamu mbër amuñu papa yu mbër. làmb xam nga ñun ñoo gëm suñu bopp. indi ko biir jamñaajo jamñaajo bu ñu doon wax làmb sax xëy na xamuñu làmbul mais xam nga gëm suñu bopp la. gëm suñu bopp indi làmb biir jamñaajo. indi xam nga war na turu jamñaajo ci làmb ba ñëpp xam ko kon ñun xam nga euh, basé si suñu papa. wala suñu nijaay bu doon mbër. Hmm? waaw ñun suñu mbër moom xam nga ñun ñoo ko indaale. waaw ah, noonu la demee te incha allahu rabbi yàlla mooy maye ndam ñoo ngi koy ñaan ndam. lamb bi lii moom du combat quoi sérieusement. ndax la yaay non Réveil Miski Leral lii du combat. <laughs> li mu wax. comme li mu wax foofu laa koy tontu rek man affaire ay doomu mbër ak ay yooyu man liggéenti gu ma ko man bëri naa ay combat yu bari sama papa su may bëri sax du ma liggéenti damay bàyyi ma dem ak sama ñi may àndal ku si mel ni méta waaw bi ma demee ba xam ne nag mooy loolu si la commencé di ñëw ay doomi mbër affaire yooyu. nañ ko jël tege nee doomu mbërëg wàlle bu ñu koy dekk loxo ba koy ñaanloo martama bàyyi a tax mais lay tax nit ñi di ñëw si moom moo koy sàkkul boppam man ay ay ay ay ay ay doomi mbër ay yooyu noonu nañ ko jël tege ne man maa gëm sama bopp may dugg si bëre kenn waxuma ne dugal si bëre sama papa waxuma dugal si bëre kenn waxuma dugal si bëre maa dugg si bëre suñ borom dimbali ma may bëre suñ borom suturaal ma ba tey comme bu nee lii du combat day nax boppam rek barke Sëriñ Fallu day nax boppam <laughs> yéen ma ko jàpp mu jeex billaay wallaay. ah billaahi. foo jàpp kan. barki Sëriñ Tuubaa li yàlla may woon bu ko nanguwul fu ma ko jàpp mu jeex. booy ñu ko jàngal bëre laa daan. kan. Ah, laaj ko moom. mu ñu la jàngal laaj jàngal bëre. laaj ko ma jàngal bëre. ko ah, moom moo ko wax bi paas ah. ñaari magam ma daan leen. moom mooy ñëw ah, xam naa ne moom mooy ñëwaat toog ci rek. mbaytin si ñoor it na leen laaj. man Mbaye Tine Junior loosoo yoralu ma kenn revanche sama bopp laay ñëw bëreel sama yoonu bopp laay jël topp ma si ginnaaw kenn sama yoonu bopp laay jël pour ñëw bëreeg moom daan ko dem sama yoon nekkuma fi naan ay daan na diw ak daan na diw ñoom daan daan na leen leen defal ñaanal ñooñu jàmm. mais mais bis bi sa premier grand combat est que bis bi du diis si yow. waaye ban diis man waaye man never mind man amul luy. di sa la man amul luy diis si man. barke Serigne baax déggoo li ma laax amul luy di man ci affaire de làmb amul luy di si man waaw na dëggal boppam rek incha allah le 23 mu taxaw bañ def yooyu mu doon def rek taxaw dëggal boppam. dab daan booy bi man dafa ban booy bi daa xam ne dañ ko dee ci yow wala ah, ñi ko dee naax nañ ko de. Ah. moom na indi naa ay magam baat bi siflee nu mu booy bi kii man ak moom tamit. man tamit ah man dinaa bëreeg booy yi ñu naan may dëggalal sa bopp la ak ñàkk dëggal sa bopp làmb li fay neex maa koy def. affaire yooyu naan ay xaar ma moom bu mu lijjanti de man du ma xaar mbër de moom bu arbitre sifflé fu mu ne ma fekk ko fa jàpp. incha allahu rabbi xam nga moom dafa def si xelam ni bu arbitre sifflé damay toog di ko déglu moom parce que moom jàppee na boppam xale bu ndaw. waaw loolu la jàppee boppam su arbitre sifflé. man maay man maay dem. daf daan bu arbitre sifflé. wallaay maay dem. daf ñu wóolu la ah, man dama déggoo ma de man bërëntewu ma lenn laay jooy ci bëre kon li mu waxoon lan la wax moom. doole lay jooy man ñàkk entraînement lay jooy mais contact ñaari fan yu baax su ma ko defee mën naa bëree quatre-vingt-dix minutes. te deux mois ngi nii maa ngi koy contact. non dama lay wax rek pour muy leer sama waa man ñi may contactal ak ñi may bëreel yàlla xam ne ni du pour moom sax. kii ci làmb xam nga ne dafa yoroo si kàpp ak keppaaru mbër. Mhm. juddoo Fass xaw ma màggee fa ñu jàngal ko takk kii Fass ku ma dàq bëre amu fa. ci gàttal. li dal ku ma dàq bëre Fass amul. mu naan la. nee na Fass barke Serigne Touba maa ko dàq bëre. téeméeri junni yoon bokkuñu sax ñi muy wax naan ay daan na leen daan la ñoom ñëpp damay contact ak ñoom xam nañ ma bu baax comme ñi mu ay daan na nag daan dañuy contact damay dalante ak gars yi comme moom ni mu ko waxee barke Serigne Saliou Mbacke maa ko dàq bëre téeméeri junni yoon. nee day ñëw nag man de ku xool samay combat yëpp xam ne mosuma teggi sama tànk arrière góor. te du ma ko mës a def. waaw bu bu arbitre soufflé le 23. benn naa bi bu arbitre soufflé le na taxaw dëggal boppam rek. incha allah comme dañuy daje bu dee day ñëw damay ñëw dañuy daje loolu day neex incha allah. boo areerul dama daal ci une minute lu leer daal la wax bu arbitre sifflé ba dox sa kaw nga taxaw ma daal. du ma ko su ma xoolee du ma ko bëgg a wax du ma ko wax karamu karamu karamu karamu sa yi sax am bii barke Serigne Touba Mbacke sa boo jëlee sama du dootoo bëree. barke Seydina Mohamed sëñ bi boo déggoo li ma la wax may la boo jëlee sama coup barke Sëriñ Tuubaa dootoo bëree. billaay wallaay boo jëlee sama coup dootoo bëree. tali fële. vite fait vite fait naa la vite fait sa bëree bënnul. sa sa kott yooyu ngay def boo ko defee dama lay suul ci stade bi. trois kaw la am si làmb. trois kaw la am. maa dóor elu. maa dóor mboro di maa dóor bébé Saloum 3. maa dóor ñu daan trois kaw boo tapee YouTube léegi nga gis ko trois dinaa la jàpp daan la jël bu rëy. du ma fi nekk di xeex ak yow booy xeex da ngay xeex ak sa morom. ah xëy jàpp daan <laughs> ko. dégg ko du fi kii mooy loolu. mag la damaa waxoon du ko door mais yi muy wax nii billaay wallaay taala dama koy dóor mu daanu si kàttanu yàlla. ñëwal ñëwal ñëwal xeex. wuy ma ay Milano. rus naa la dóor yow. du la dóor dama lay jàpp daan ay Milano. déggoo yow booy booy wuy ma wuy ma yaa ngi mettil combat bi de te ngaa massa bi nga doon kii ah, raay li nga meloon rek yaa ngi koy mettil de dem fan pour yaw billaay wallaay taalaay waa déglu déglu yaa ngi ko déglu foo xam demal sëriñ lekkul sama ñaar dërëm yow mii dinaa def sëriñ ci yow yow ten booy ba li ngay wax waay yow ba damay lamb làmbatuma damay lamb dama lamb dama si def ay 3 millions ci mbër mu ndaw 3 millions déggoo li ma lax man 3 millions dama koy def si ngemb samay premier combat dama def ay 1 ba tay ma egg si fii te du yow yaa may téye barke Serigne yàlla xam ni ne wéy ma ma doon ñëwee ci làmb sax bii mooy gën a oyof kese laa lay indi yaa nax booy man lan sama yaram doo fi gis luy waaw yow doo ma bàyyi bi lii def fii am solo ay affaire ay ngemb ak yooyu sax nañ ko jël tege ne kii buñ génnoon fii si suba barke Serigne Touba buñ doon contact fii ba suba du daan billaahi wallaahi mën naa ko jox mu téye fu ko neex ma jàpp ko daan ko maa ko dàq bëre téeméer yoon man damaa mën a bëre barki Serigne Touba. daf daa doon sa làmb yu romb ah yow bàyyi ma booy yow. daf daa làmb du ma si ñëw làmb duma ma si ñëw. di jéem a xool lu rafet wala spectacle wala dara su ma la amee bunt bu ma la mën a daan dama lay daan dem sama yoon. du ma fi nekk naan damay xool lu rafet ak damay. da wax ñeneen. mbokk yi jërë ngeen jëf gis nga ñaari mbër yi waxante nañu. waaye nag ma naar naar yaa ngi. ki waral bis baa ngi nii di Bamba Milano nekk benn jeune boo xam te ni yaakaar naa ne fële ca bitim réew la nekk ci Italie ca Milano di boobaa yaa koy wéetoo xam nga di woo di woo di woo ah, ah, jamñaaje yëpp un ba vingt-deux bàyyiwuma kenn xam nga di woo duudu di woo duudu sama waaj non may ma may ma ñëw di ah, woo duudu di woo duudu di woo kosu Ahmed di woo kosu Waali ah di waaj may ma ma ñëw may ma ñëw jamñaaje yëpp ñoo ñëw kosu Ahmed kosu Waali waaw moom tamit nee na moo ngi woo nooyi ko sëm maa ngi ko koy woowaaleel sama maître Abdallah naan ko làmb ji sa làmb la nga ñëw booy bi moom sax bëgguma ko naa jàpp war na ko maa ko dàq bëre foofu si kàttanu Yàlla jaajëf di woo waa salle bi yëpp jaajëf jërëjëf fàttalul fitaa nag jërëjëf jërëjëf waaw magan maa ngi am ñoo xamante ne dama leen woo si sama laama ji ñu jàppale mu baax a baax waaw di woo waa Italie dëkk bu naan kere munaa di woo ñoom Pa Modou njaay xam nga ak ñoom Iba Ndiaye Jibi jéy Modou Dieye fàllu Niang sama rak waaw ñoom Aliou Versace maa ngi leen woo si làmb ji le 23 décembre ñu ñëw teg seen loxo seen ñu ñëw teg seen mag loxo waaw man ngaa leen woo si làmb bu baax a baax a baax waaw ñoom waa keroog mun naa bàyyiwuma kenn su ma limee demee juum ñoom Badou maa ngi leen di woo si làmb ji bu baax a baax a baax ñoom Cheikh Tidiane maa ngi leen di woo waaw bàyyiwuma si kenn. waaw waaw Fadilou Vita moom. beneen affaire la. waaw ñooñu. bu Rose moom laa tuddee. wuy ma. sama ñaari waajur. di lu nuyu yow Makan di nuyu Dab Daan di nuyu vite waaw di nuyu képp ku may jàppale ku si mel ni As. nabi ñoom ñëpp maa leen sant di leen gërëm Baba Sarr du nuyu ñëpp di leen wax nag bis bi jaay na boppam ba pare di leen wax diggante dab daan vite dafa nekk laama joo xamante ne nekkul laama ju yomb kii mooy dab eh, bii mooy premier grand combat te dab daan dafa demoon nee dafa bëgg de retour dab daan nee bëgg ñëw waaw nee na dab daan dafa bëgg a ñëwaat jëlaat place am nee na booy ñii moo leen mën ñoom ñëpp waaw mu nekk laama joo xamante ne maa ngi si woo amateur yëpp di si woo ñëpp ñu ñëw jàppale ma si journée bi mooy samedi le 23 décembre ñu tëgtal si nag ay combat yu am solo bu nee dab daan ni vite fait waxtaan ak ki nga xamante ni nii moom mooy Serigne Cissé borom tawféex jox ko drapeau bi mu nekk journée boo xamante ni nii man nee naa leen waruma politicien Serigne Cissé borom tawféex la doy na ma sëkk te manqué woo si làmb ji man moom moom moom la ñuy tiitaroo moom la ñu am Serigne Cissé làmb ji yow lañ ko tuddee waaw ñoo ngi la si woo nag bu baax lépp loo si mën nga def ko si parce que nit ñaa ngi daw di wëri ay politiciens man wóoruma politicien yow Serigne Cissé borom tawfeex yaa ma doy sëkk te li ma la wax ni xam naa ne boo ko déggee lépp loo jàppoon di nga ko gën a jàpp pour eh, bis bi réussir waaw ma ma si tëbtal nag yeneen combat c'est parce que tey ji boo nee dab daan vite fait xam nga combat spécial bi mooy Zeus 2 ak ndigal bu Grand Médine waaw booy kanam ak euh, ki nga xamante ne mooy Karbala Borok énergie saa jaxaay ak Petit Modou Lo mhm. Ibos bu Faas ak Boy Seck Mor Fadam mhm. ñu ñëwaat foofu noonu mbës 2 bada 2 déranger Pape Seras mhm. bàcc Seras 2 war a jàkkaar ak ki nga xamante ni nii moom mooy baax yaay waaw ñu ñëwaat si Billy Boy ak Mbaye Seye caatu Grand Yoff ak maalo bu Gunaas mu nekk làmb yu neex neex yoo xamante ne nii ne ko ñëpp xaar samedi le 23 décembre fee sa arène di nuy ñëpp di woo sama mbokk yi yëpp maa leen tàllal loxo waa di nuy staff Milano production di woo ñëpp su ma limee damay juum di nuyu ki nga xamante ne mooy Babacar Ndoye moom laa tuddee drapeau bu am am solo diggante saa Jaxaay ak Petit Mourlo drapeau Babacar Ndoye la drapeau Baba Sarr Dieng moo nekk ki nga xamante ne mooy Evos bu Fass ak Boy Seck Mor Fadam Baba Sarr Dieng nag ñoo ngi koy woo si làmb ji parce que drapeau bu amaam solo lañ ko tuddee ak ki nga xamante ne nii moom mooy Babacar Ndoye ak Faa Lovre eh, kii lu mu tuddee sax Faa Faatu ñoo ngi koy nuyu baax waaw Faatu moom lañ tuddee drapeau ki nga xamante ne nii moom mooy euh, Bada ak Mbës 2 waaw mooy fa borom lèvre lees yi xam nga affaire jigéen yooyu waaw lèvre lees yi xam nga lèvre ah. waaw lèvre waaw faatu lèvre rose tamit ñoo ngi koy woo si combat bi moom lañ tuddee drapeau am xamante ne mooy mbës ak bëre de waaw faatu lèvre ngi koy woo si combat baax a baax moom tamit am na solo waaw ñu nuyuwaat ñëpp ñu nuyuwaat ñëpp waaw di jox gaa yëpp rendez-vous ñaari mbër yi ku jàpp seen combat day yomb mënut a yomb si ñoom ñaar ñëpp parce que combat bi dañ koo waaj lu yàgg ñoom ñëpp toog di xaar waaw mu nekk dara mu nekk loo xamante ne nii ne ko ñëpp xaar. waaw di rafetlu képp ku fi teew la maa ngi lay nuyu. du nuyu ñëpp. waaw wax Fadilou Vita nag di nga xam ne borom affaire yu baax yeeg neex-neex yi. waaw Fadilou Vita dafa nekk restaurant boo xamante ne nii tawféex la. boo fa duggee sax. billaahi dinga lekk. dinga naan dañ fay ñëw waxtaan ak ñoom. laaj ñu dara dañ ñu koo jox si gratuitement fay ñu leen dara. ñu leen sant nag di leen gërëm. te ñoo te ñoom ñoo ñoom ñoo ñëw nañ ñëw jàpp si bis bi. képp koo xamante ne nii yaa ngi biir Malika. ak foo mënti doon Fadlu Bita moo ngi nekk. en face pharmacie boo duggee si mbedd pharmacie bi boo doxee tuuti ñu ngi ko gis xewlu yu baax yaa ngi fi lépp loo bëgg a ngi fi. añ ngi fi reer a ngi fi ziye ngi fi fuur wi loo bëgg mu fi. ñoo leen sant nag di leen gërëm baax du nuy nga xamante ni moom mooy responsable bi soxna Xadi ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax a baax waaw du nuyu ki nga xamante ni mooy borom këram ñoo ngi ko Mbacke Balla Aïssa ngi lay kii waaw ñoo ngi lay ñoo lay ñoo ngi lay nuyu di la di la jaajëfal di la di la di la di la ñaan nga ñëw jàpp si làmb ji bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf. yaakaar naa ne nag li ñu xoj ci waxtu yaakaar naa ne xaw nañoo laalante dañuy sant ñoom ñaar gërëm. waaw xaaral ñu jox leen ñu sant gërëm ak ñi leen jàppaleeg yooyu noonu ndax yaakaar naa ne làmb da cee am loolu daf ci am solo muy ci ñi leen xam ne ñoo lay jàppale ci wàllu moyen ci wàllu xaalis daf ci am solo mbër ana looy tàggatoo lan ngay woo ci ñi nga xam ne ñoo la war a jàppale ci combat bi waaw damay jiital di woo waa jaxaay gépp jaxaay 1 jaxaay 2 cité gendarmerie 12 b alaaji paate Kër Massar ñëpp ñëw dooleel ma <coughs> di woo aussi ASC yi fa nekk leen ñaanal jàmm suñu ASC jaxaay waaw contre mook Cité la di ko leen ñaanal ndam aussi ASC 19 méta man ñaar équipe la am parce que 19 méta moo fa nekk quoi mooy lool waaw di woo waa Jaxaay gépp Moussa Ñaa <clears throat> maa ngi koy woo ci combat bu baax a baax Abdou Aziz Diané suñu maire di ko woo ci combat bi di woo Ibrahima Ndiaye di ko woo ci combat bi bu baax a baax a baax di woo suñu waa dëkk waa Mexey Lambaay maa ngi leen di woo Mexey surtout waa ASC Jàmm suñu waa ASC ASC Jàmm maa ngi leen di woo ci combat bi ñu jàpp si bu baax a baax a baax ku ci mel ni Ibou Diouf borom Italie maa ngi koy woo si combat bi mu jàpp ci bu baax a baax a baax Mor Gueye borom États-Unis maa ngi koy woo si combat mu jàpp ci bu baax a baax a baax Lamine Dieng maa ngi koy woo si combat bi borom États-Unis ñëwoon na mais na ñëwaat waaw parce que affaire daa métti mu jàpp si bu baax a baax a baax a baax ku ci mel ni Baytan di ko woo si combat bi mu jàpp si bu baax a baax a baax Mbaye Ndumbe borom Gere Fass sa naturel ku bëgg lu baax rek mooy loolu. maa ngi koy woo mu jàpp si ñëwoon na tamit na gën a ñëwaat maa ngi koy woo mu jàpp si bu baax a baax Zal Ndiaye Kialla xam nga suñu waa dëkk sama nijaay Omaros di ko woo si combat mu jàpp si bu baax a baax Moussa Diouf maa ngi koy woo si combat mu jàpp si bu baax a baax xëfu jeey borom États-Unis sama mag ko woo si combat mu jàpp si bu baax baax a baax waaw moom joxoon na ma lu duun borom Espagne na ñëwaat jàpp si bu baax a baax ku si mel ni Zisto borom Espagne maa ngi koy woo mu jàpp si bu baax a baax sama papa maam góor borom Italie maa ngi koy woo mu jàpp si bu baax a baax a baax de Milan di ko woo si combat bi tey la ma war a dugalee li may jox waa na ñëw nag maa ngi koy woo mu jàpp si tamit bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax rakam rakam Cheikh Ndiaye di ko woo mu jàpp si bu baax a baax a baax. di woo suñu waa dëkk gépp gépp gépp gépp gépp gépp làmb dafa metti may ma tuuti rek ma àggale di woo suñu waa dëkk surtout waa ASC jàmm booy di leen woo ñoom ñëpp képp koo xam ne li mu mën rek dama juum wala xel mooy fat di woo ñëpp ñu jàpp si bu baax a baax a baax a baax sama doomu nday méta waaw moom mi ngi si jàpp bu baax na si gën a jàpp maa moom nag mooy loolu dallu càmmeñ nag ak dallu ndi joor boo solee ndi joor bi boo demee dinañ la sa benn dallu càmmeñ bi anamu maa moom noonu lañ mel waaw di woo Ibou Khady borom jilaas di ko woo bu baax a baax a baax mu jàpp si Mamour borom joof yoor di ko woo mu jàpp si bu baax a baax a baax a baax a baax a baax maakura ñëpp képp ku may ñaanal suñu papa suñu Omar Seck borom Saloum di ko woo mu jàpp si bu baax a baax a baax a baax a baax a baax sama nijaay saxeer isbu borom turki Istanbul di ko woo mu jàpp si bu baax a baax a baax a baax sama papa sama nijaay àbbu di ko woo mu jàpp si bu baax a baax gërëm samay doomu ndey samay doomu mag mbay Baye Mass Baye di ko woo mu jàpp si Dame Gueye Dame Ndiaye mbay Ndiaye Pape Diouf xam nga di woo gaa yëpp Dieng njaay ñëpp sama rakk yeeg sama mag yi sama doomu ndey sama doomu baay ñëpp maa ngi leen di woon jàpp si bu baax a baax a baax sama papa Abdou Kanji waaw papa Abdou Kanji papa Kebe Kanji tafaa Kanji maa ngi leen di woo ñu jàpp si bu baax a baax a baax baax a baax a baax a baax a baax. waaw Modou li nga ma waroon a jox wax nañ wax nañ li ñu waxante woon si làmb ji ma wax la ni làmb ji demee lépp te la demee am na loo ma waroon jox waaw maa ngi ñëw Lac Rose boobu ba léegi xam naa ne amoo temps moo tax mënu maa ñëw dinaa ñëw nga jox ma li ma waroon jox sama papa Abdou surtout loolu di waat bu baax a baax papa Abdou Kanji Kébé Kanji Tafa Kanji maa ngi leen di woo bu baax ñu jàpp si bu baax a baax a baax. ñu xam ne tamit suma ma juumee ñoom nañ ma jéggal parce que man seen doom laa xam nga rek xel matul des fois da toll foo xam ne nii dangay soxla dara xam nga affaire rek xaw a métteeg yooyu noonu. moo tax mooy loolu. jërëjëf jërëjëf bi daa yàgg jërëjëf. dab ana looy tàggoo yàlla bu baax santaat yàlla bu baax julliwaat ci yonent bi di ñaanal sama adversaire jàmm. di ko wax lépp lu ma lépp lépp lu ma ko fi wax rek. xam nga pour pour làmb ji la waxuñu ko pour dara lu koy gaañ parce que ñun xam nga yareewuñu euh, wax ju ñaaw wala di ko jëf. xam nga di woowaat jam ñaajo yëpp 1 ba 22 bàyyiwuñ kenn. di ci jiital suñu suñu maire Mamadou Moulaye Gueye. di wax ni kon moom li mu wax rek. waaw ah, làmb dafa metti boo xoolee làmb ji pare nañ ko lu mat trois mois. walla 4 mois. xam nga dem entraînement dem uti ay ñaan am nga sa wàllu xam préparation làmb leneen la di woo Mamadou Moulay Gueye suñu maire en tant que diggante papa ak doom quoi man laa koy woowee sax xam di wax làmb ji làmbam la na ci jàpp bu baax a baax a baax di woo suma suma frère suma dereet la muy Adama Mohamed Mbaye chaque jour dama koy wax xam nga ndombal tànk boolewu ma ak moom yàlla moo ma boole ak moom ñuy ànd xam mu mag ma fuuf nag jàppuma ma te yàlla rek tax xam nga di woo soxnaam kan ah borom dënd yi Ndeye Ndiaye di ko woo si làmb ji naan ko làmb ji làmbam la di woo waa lax ku fi mel ni Daouda Mané aussi di woo Messi mbaay suma doomu ndey mais di woo Pape Samba Gueye international di ko woo naan ko combat bi combat la na ñëw bu baax a baax ñu jàpp ci booy bi xam nga combat yu yooyu noonu laa ko roon defal mais xam nga commencé na bari wax foog ma defaral ko ñu jàll ci leneen Pape Samba Gueye bis bi sa bis la dama lay ñaar ngir yàlla lépp loo ci mën ñëwal xam nga yaa ngi ñëw mais gën a la ñëw. ama di woo Abdou Aziz Mbeng xam nga li may wax chaque jour. Abdou Aziz Mbeng kenn la jam ñaajo kenn la muy nit ku baax xam nga dama naan bu jam ñaajo amoon ñaar ñu mel ni moom ba léegi jóge nañ fi ñu ne. muy ku baax xama du tànxam lu kenn di ko woo ci làmb ñu naan ko Abdou Aziz Mbengue bis bi sa bisa di woo coon Ngom président ret sama rakk la kooku di ko woo ci làmb ji naan ko làmb ji làmbam la ñoo ngi koy xaar mu jàpp ci kon nu mu fi doon jàppee xam nga di woo Babacar Gueye Babacar Gueye di ko woo xam sama sama gaañ la xam nga booy di ko woo ci làmb ji mu ñëw jàpp di woo suma xarit yëpp ñi ma dépp non sama waa ji damay wax kii cinquante minutes la woote damay woote soixante minutes waaw ah, eh, eh, ëppalee ko 10 minutes ama di woo Serif Sey di woo Serif Sey naan ko làmb ji sa làmb la Serif Sey làmb ji sa làmb Bamba Milano li may wax ni jël ko vite bi muy wax sànq da nga ko doon filmer filmer ma <laughs> waaw ci làmb lañ nekk <laughs> mënoo ko bul ma woo de dañuy làmb waaw ah. ama di woo Serif Sey di ko woo ci làmb ji suñu tonton Serif Sey di wax nit ku baax la ama di ko woo di woo Vieux Ndiaye di ko woo ci làmb ji nang ko Vieux Ndiaye bi sa combat lamb ji sa lamb la booy bi dégg ngeen li mu fi wax yëpp ñu mu fi woo ñëpp non ñoo ñoon xool dama leen woo pour ñu jàpp ci làmb ji mais pas yow yow moom ngemb cent franc du ko fi def bu fekkee yëpp man ak yow kese la waa baax na dix bolog yooyu noonu yàlla na jar ak jàmm ñu lool lañ la yéene parce que xam nga yéene nañ promoteur bi lu ëpp loolu parce que promoteur bi jàmbaar la ndaanaan la xam nga ku ci merci Serigne Cissé di ko woo di woo di woo di woo may ma may ma may ma ñëw di woo Serigne Cissé Serigne Cissé mosuma ko gis mais xam nga dama koy suivre xam nga mu nekk nit ku baax xam nga dama koy suivre kii wam yëpp. waaw Serigne Cissé papa yi vite fait di la woo ci combat bi jàppaleel vite fait jàppale dab daan ci làmb ji nii waaw jàppale ñu ngir yàlla kii nii waaw kii nee na papam nga man na xam nga sama soppe nga parce que xam dama lay seetaan xam nga di woo Aliou Thiam merci am di woo Aliou Thiam Aliou Thiam di ko woo naan ko Aliou Thiam làmb ji sa làmb ji sa làmb la non non waa armée armée bu ngéwal dafal jàppale vite fait parce que loolu noonu yëpp xam nga àdduna la mais xam bu naan xam buy toog fii di woo naan armee pour mu jàppale ko loolu moom wax ju yàqu la bu la armée indi lay loo naan naanal bu la indi lay loo sangu sangul bu boobaa bu boobaa Rose borom Pikine boo jugee nee naa la ñëpp jug drapeau bi diggante Bada 2 ak Mbës 2 bu Rose maa ngi koy woo Serigne Cissé borom taw féex maa ngi lay woo bu baax a baax kontaan naa si yéen yéen ñëpp waaw du nuyu waa Italie ñoom Ibra samay xar yu baax lan ñu yàlla na yàlla defal jàmm du la nuyu ñoom ñëpp Fallou Niang maa ngi koy nuyu di ko woo si làmb ji di woo ñoom xam nga Pape Modou Ndiaye Ibba Jibi Dieye maa ngi leen woo Pape Modou Modou Dieye maa ngi koy nuyu rakku Jibi maa ngi leen woo si làmb ji ngeen ñëw jàppale seen xarit seen doomu day Bama Milano borom Milano production Alfadul Vita nag seen numéro téléphone ku ko bëgg defal 77 376. 22 68. Alfadlu Vita. mais am na càq-càq yoo xam te ni Libération la waaw ñoo la ko indil numéro càq-càq bi. dinañ ko ah, joxe léegi incha allah si kattanu suñu borom. du nuyu ñëpp xel mooy fàttulat su ma mais tamit makan ah. dafa am lu ma bëgg a wax. mooy lan. Papa saw mhm. Papa saw mhm. maa ngi koy woo si làmb ji. kooku dañ koy décorer bu bis ba loolu man maa ko woo waa waa Papa Sow bologu bi nga ma digoon avant làmb ngi taxaw booba léegi déggante ñu dama am problème mu téléphone. waaw même ticket bologu bi dinaa ñëw maam père Ba maam père ñëw si ticket bi bologu ticket bi. waaw xam nga. tey Mansour Ba Mansour Ba maa ngi koy woo si làmb ji parce que moom suñu grand la. moo ñu jiitu waaw mais doola may ma wax après ngeen wax yooyu ñëpp di ngeen wax Mansour Ba maa ngi koy woo si làmb ji di ko wax Mansour Ba yow suñu grand nga te ñun ay promoteurs yu bees lañ dañuy doog a dugg si làmb te boo ñu jàppaloo lat wala tegoo ñu loxo lat mën nañoo am problème si làmb Mansour Ba maa ngi lay tàll sama ñaari loxo social bi ngay def nag ñëpp gis nañ ko ñëpp gis nañ ko man Bamba Milano borom Milano production yow Mansour Ba maa lay woo sama lamb ji le 23 décembre bi nga jàppale moom baax a baax waaw di la sant nag di la gërëm Papa Sow assurance maa ngi koy sant di ko gërëm waaw Fouta production maa ngi koy sant di gërëm di woo ñëpp. yow acca waaw Mamper Ba Mamper Ba Mamper Ba di ko woo si combat mu ñëw jàpp si bu baax a baax waaw Papa Sow lamb ji jàpp si bu baax a baax a baax a baax. waxal maam ba mu jëndal ma ñaari bologu ticket parce que 10 bolog laa jël na si jàpp bu baax a baax di woo ñëpp waa jaxaay yëpp sama soxna nday adara maa ngi koy woo si combat mu jàpp si waaw xam nga di woowaat euh, sama pro bi kan ah, ba euh, Sadibou Sagna di ko woo ci làmb ji Sadibou Sagna làmb ji sa làmb la dama bëgg nga jënd bolog yëpp incha allahu rabbi Sadibou Sagna làmb ji sa làmb di sant nag ah sama soxna nday ndaw borom ndënd yi ak tama yi yow sa soxna mënul ceeb ah waaw di woo di woo di woo Mor Cissé waaw di woo Mor Cissé nabi damaa bëgg damaa nabi damaa bëgg may jël nii nabi damaa bëgg lu may wax ni nga jël ko di di woo Mor Cissé DG Ecotra Mor Cissé DG Ecotra ñoo ngi lay woo ñun jeunesse bi dañoo am si yow yaakaar te il faut nga dimbali ñu nga jàppale ñu gis nañ social bi ngay def Mor Cissé directeur Ecotra bu Malika Mor Cissé directeur Ecotra bu Malika ñoo ngi lay woo suñ samedi bii le 23 décembre Mamadou Yata Sarr borom Ecotra moom tamit ñoo ngi koy woo si làmb ji ñun ñëpp nag dina leen seet si kàttan suñu borom di santaal nag di gërëm borom Alfadilu Vita. waa vite fait waa vite fait waa vite waa vite fait làmb jee paase génnal nañ ma deux bologu ticket. waa vite fait laa mujjee passé gënal nañ ma bolo gu ticket bii maa ngi leen di woo ngeen jàpp si gënal ma quatre bologu ticket démb ñu ngi déggante am na luñ jot a luñ jot a luñ jot a luñ jot a kii waa vite fait nañ si jàpp bu baax a baax xel mooy fattu waaw waa vite fait nañ ñëw jàpp si bu baax a baax a baax a waa di woo waa maana di woo waa joko di woo waa jàppoo di woo waa di woo waa manko jam ñaajo bi yëpp ay see yëpp di leen woo nga ñëw jàpp ci làmb ji ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ma jàpp vite fait ko bu cur bu ah. bëree ma daan ko ci une minute man waa waa waa Fadlul Vital laay wax nee naa leen képp koo xam te ni bëgg nga numéro bi dangay da ngay def 77 376 29 68 22 waa vingt 22 68 nee naa leen am na cak-cak am na lépp mooy waa Fadlul Vital ku bëgg ci dessert bisaab lépp boo bëggee rek boo wootee foofu noonu caakiri